mooy wax ci tolluwaayu réew mi tolluwaayu réew mi ñetteel bi mooy wax ci li ñu dëgmal muy élection législative yi ñetti tomb yooyu rek laa fas yéene waxtaan ak yéen te bu soobee yàlla du gudd li ma bëgg a wax ci militant yi mooy dama bëgg ñun ñëpp ñu jóg taxaw

jërëjëf dama bëgg dama bëgg àdduna àdduna yépp xam leen lu am solo mooy ñooñu ñuy wooye suñuy martir

ñu jàllale ko ci assemblée nationale ñu voté ko kenn ku ne ci famille yi nga xamné ne famille victime yoy la ñu mën la jox ndampay gu mat ndàmpaay donte loolu wul ñu fi wala lu mëna wañi ci douleur bi ak Léral, gi nga xamné dinañ ko Léral, ba mu bañu xam ku def ak li tax mu def ak ku ko yoni lolé yëpp dina leer motax na ñepp and ak tay ak dal mbirum état du mbirum parax parax mbirum état lo ci liggéey rek dang koy tek ci yoon and ak respecté charte yi kon ma ngi rendre hommage à nos morts ma ngi rendre hommage aux blessés ñi nga xam ne am nañ ci gaañu yu métti lenn ci seen cër sooxe na ci wala seen yaram jagadi na ci ñu ngi leen di rendre omage di leen massaw ñoom xam nañ ni parti bi musu leen seetaan ñoom xam nañ ni bis bu ne saa suñu sëqatee parti baa ngi taxaw seen wet la ci war ñu ngi ciy góorgóorlu ci def suñ kem kàttan may rendre hommage tous les militants et les militantes, tous les militants et les militantes, à travers tout le territoire national et dans la diaspora, nyep gis nañ seen taxawaay dañ ba ni sénégalais gamul dara moo munul mënul xeex lu mu gëm waaye dafa wane ni la won ma nga fi ba léegi mooy réew mii réewu gor la rew fit la rew jom la rew ful la rew kóllëre la ta lolou yéen ñi la wa Pastef yéen am taxaway bi ba adna yeb gis ko soyez fiers de ce que vous avez abattu comme travail soyez fiers d'avoir été là non pas pour un homme mais pour votre pays may rendre hommage tous les militants amul département bu des département yi ci le a fës lu mel ni Ndar lu mel Ndakaaru Rufisque Kër Massar Bignona Ziguinchor ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuma pas lem fii ngi rendre un hommage mérité ci biir hommage boobu nag di ngeen ba may ma def une mention spéciale une mention spéciale à Ziguinchor xam ngeen yàlla def na bi ñu toogee ci nguur gi ba léegi jotumaa dem Casamance dem nuyoo ji sama parce que boobu ba l'égui, ci agenda république bi ma nga ci ligueyu état président Bassirou parce que dañu fekk ci état bo xamné situation bo xamné dina ci mais dina am rek wax projet bi dafa am ay tournant projet bi dafa am ay tournant bokk na ci tournant yooyu li xew Ziguinchor ci diggante bu gàtt boobu xam ngeen bi ñu demee ba gaa yi lal seeni pexe ñu dem ba xam ni ñii dootuñu dellu gannaaw waaye ñu dem tam ba xam ni doonte militants yi militantes yi jàmbaar nañu lool waye waa demna dem na fagaru profiter temps bi mu am diggante 2029 ak 2023 dem jënd lu toll nu kenn xamul ci ngànnaay recruter lu kenn xamul ci ay ñu xamni dina jafe ñu taxawaat jàmmaarloog ñom ba am ci ndam biñu gisé lolu ci la wo kenn ci sama avocat yi muy maître Bamba Cissé mané ko maître mané ko maître gaay dé japp jàpp naa ni bii paa dina jafé lañu ñu ak 2021 ñu mën ko défat motax il faut ma changer stratégie bi ci naka mané ko xam nga nu may def mune ma mané ko il faut que ñu gagner du temps parce que faw rek ñu yegg ci élection bi té buñ leen sétané ba ñu am li ñu bëgg ñom té dinañ fas nañ ko def ñom balaa élection bi di jot bo moytul du duñu egg ci élection bi wala Pastef du am candidat ci élection bi kon lan lay def mune ma mané ko faw rek ñu fexé ba ñom

lolou mënul nek de parce que ici on est en matière criminelle bo ñewul dinañu yoni alkaat ñu ñew jël si la sa kër te bu boba dinañ la toroxal te defe na jaruko ko en matière criminelle la comparution est obligatoire Maneko Maneko maître li nga wax waxu droit la man waxu politique la wax parce que li ñi def ni politique la suis maître Ablaye Wade un procès politique ne se gagne pas dans les prétoires mané ko dina ko régler sama bop non waye duma la wax lama ma ciy def parce qu'il faut me protéger la ma dugg ci groupe whatsapp bu avocat yi bind leen ben bataxal ne leen ma ngi leen di gëreum yeen ñepp li ngeen won def yeb def ngeen ko waye mbir mi dotul mbirum droit wala mbirum avocat la ca dess nak dina ko doxal nima ko wara doxé bi ma ko waxee débat yi bëri woon na lool amul benn avocat bu ci d'accord woon ñoom ñëpp ne ma lii ànduñu si ma bàyyi bës boobu ba 22 heures ma woo sama chauffeur am di ngom woo kenn ci samay garde corps muy Petit Lamine Sonko man leen waajal leen trois heures du matin daa am fu may dem 3 heures du matin ñu jël auto bo xamné auto oto banalisé la dem nañu ba génn ma dog leen wax ni tegu leen ci yoonu Ziguin Sor Casamance sa jëm parce que it jàppoon naa ni résistance bi ñu def Dakar te yeen ñep ngeen def ko ma leen di rendre ma leen di rendre hommage ñëpp xam nañu buntu kër Ousmane Sonko cité kër gor gi ak taxaway bi ngeen ci taxaw yeen jeune yi waye xamoon naa ni mënatul woon nekk fii te il fallait que ñu gagner du temps ma nak nag bàyyi ma dellu replier wu fi ma xam fi ma min te xam leen xam seen taxawaay looloo ñëw bon Ziguinchor dama bëgg ngeen rendre hommage aux militants de Ziguinchor dama bëgg ñu comprendre lenn bu ñu manqué woon étape boobu tey duñu daje fii ci stade bi di wax tey duñu ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey duñu premier ministre Ousmane Sonko cette jeunesse de la Casamance les femmes du bois sacré nous avons beaucoup de nañu nous nous dunañ cette résistance héroïque nous a permis de gagner un mois de un mois c'était un mois extrêmement important pour nous mëna yex la ñibbisi bi la caravane de la liberté Vélingara Diaoubé ba nañ may jàppee fañ may jàppee booru Koungheul waaye boobu jàppoon naa ni la partie était presque gañe kon tey li may wax nii jukki bu ndaw rek la parce que suñuy mémoire dina ñëw ndax lu bëri xew na te nit ñi xamuñu ko li xew bëri na lool wante lépp lu ñu def ci jamono jooju ba ci grève de la faim bi ngeen doon dégg du woon dañoo bëgg xaru de ndax ay julit lañu waaye xam ni dañoo waroon gagner du temps saa suñu defee seen pexe def pression ci directrice hôpital bi def pression ci médecin yi pour ñu génne ma dem ba jël sama dossier ak dossier Fadilou Keïta mi ak dossier Diomaye Faye def jonction des procédures saa suñ ko defee rek ma duggaat ci grève de la faim bi ba nga xam ne duñu mën a ñëw jël siñu